yaa ngi koy dégg léegi nee na loi d'amnistie bi xëy na président daf ko def pour ay ñoñam. waaw ma moi je dirais pas <coughs> la même chose que que lui man li may wax mooy d'abord damay rectifier euh, conseil constitutionnel du moom mooy euh, euh, comment dirais sax euh, euh, wax collège électoral bi. ñëw leen euh, moom mooy c'est pas lui qui convoque le le collège, le c'est le président c'est le président mm deuxièmement li indi coow li yëpp la ñu war a waxtaanee coow li fan la démarré parce que li tax ñu reporter les élections parce que dañ ne conseil constitutionnel dañ ko jiiñ guerre ñan ñoo ko jiiñ waa PDS ñu ne aussi il y neuf cent mille électeurs yoo xam ne dañuy voter te ils ne figurent pas sur le fichier électoral électoral mhm. donc il y a problème troisièmement ñu ne il y un candidat boo xam ne euh, qui une double nationalité ñu écarté ko ñu gis une candidate qui a une double nationalité mu jàll mhm. ñu gis koo xam ne candidat la Mary Teuw Niane moom nekkul ci fichier électoral bi bu conseil constitutionnel euh, yor kon yaa problème mais est-ce que kon dañuy dem ci élection ci base yooyu man góoma loolu man li ma gëm mooy nit ñi toog ñu waxtaan régler problème bi sinon bu ñu demoon tey ci élection dina jur leneen dinañ fi am un président boo xam ne. il sera pas légitime premièrement deuxièmement man dama gis ne dialogue bi dafa am sa raison d'être parce que tey bu dialogue bi euh, amutoon tey bu ñu woon tey kenn du dialoguer je crois que ne problème yii nii yëpp kenn mënu ko solutionner euh, te it loi d'amnistie bi sànq wax nga ko on n'amnistie pas une personne on amnistie des faits li fi jot a am deux mille vingt et ba deux mille vingt quatre bi Sénégal ñun ñoo ko bokk da ngay dugg ci kër gis ne kii fee la bokk bee parti yow nga bokk ci bee parti du ngeen wax nga gis ay mbokk yoo xam ne politique dem na ba ñu euh, euh, xaajaleel mhm. ñu gis ne tey Sénégal fi mu toll dafa jot nit ñi delloo si jàmm nit ñi euh, ànd ak dal parce que dafa am leneen loo xam ne aussi waruñ koo fàtte. muy lan. nous sommes dans une ceinture de feu le Sénégal est menacé il y a le pétrole il y a le gaz les terroristes frappent à loolu nit ñi dañ ko war a xam kon réew mi jàmm moo ko moo ko jikk dafa am nag ñoo xam ne une partie de l'opposition amnistie bi arrangé wu leen une partie de l'opposition. réew mi jàmm moo ko ji. mais jàmm bu lalu ci dëgg ak ci justice. dafa am une partie de l'opposition amnistie bi arrangé wu leen dafa am aussi ñoo xam ne Ousmane ko génn ci kaso bi arrangé wu leen ndax xam nga prison boo ci nekkee pour man. dalay jàngal lu bari da ngay am recul te man boog li ma joto analyser ak li ma jot a diagnostiqué Ousmane Sonko prison bi mu dugg nii jàngal na ko ci lu baree baree baree bare wér xam na véritablement qui sont maanaam ses véritables alliés et qui ne le sont pas une partie de l'opposition ci boppam bëgguñ Ousmane Sonko génne ci kaso bi te dégg nga sànq sama co bi lu mu wax kon ça veut dire ñoom pour man Sénégal buñ sañoon Sénégal jàmm du fi am waaye nag li may wax rek mooy réew mi dal moo ko jig réew mi euh, ànd ñu nekk benn moo jig mhm. réew mi euh, ñëpp xàccandoo dóorandoo muy opposition muy pouvoir seen ambition du lenn lu dul defar Sénégal d'accord d'accord léegi nag c'est aux Sénégalais de décider d'accord mais nag li may wax dinañ ci ñëwaat waaw vas ci ñëwaat ñu bàyyi Kajoor mu intervenir Kajoor ñu gën a yaatal waxtaan bi